liggéeyu ren bii nag liggéey bu yaatoo yaatoo yaatu boo xam ne nit ñu bari dañuy jàpp ne mbalit du am ndax taw bi waaye dañuy jàpp ne mbalit dana am ndax am na xam ne fañ jaloon seen mbalit ma daaw ba ña fa bàyyi ndax amuñu ko génne te it buñ nee jàpp nañ mbale mi rek boo demee ci mbedd bi da xam ne mbale dana am loolu dinañ ko waajal bu baax a baax bu ñu daan def bu ñu daan def benn nañ fexe ba mu doon fukk boole ceeg nag mbalit yi barab yi ñu ko daan def am nay taataay yu ëpp taana fi ñu toll kon nuy soññi mboolem dëkk bi képp koo xam ne sa kër mbalitang fa nga war koo génne war koo génne ci biti nanga dem ci barab bu yaatu boo xam ne oto dana fa mën a taxaw jël ko te bañ a seet fu la neex rek nga teg ko fa ndax loolu ay coono lay jur ndax la nga gis koo xam ne fa mu teg mbalit ma waxuma la auto sax waye nit dem fa jël ko donc dana ko jafé kon nak lolu ni ngi ñaan dekk bépp ku mëna doon rek sa mbalitum kër bokay genn na nga dem ba fu yaatu nga tek ko fa bañ jël mu yomb ci ñom mo gën diko def ci fo xamne dafa am ndox lolu ñu señ baang ci soñé bu baaxa baaxa baaxa baax ñu gëna farlu nak ci dana am am bay ndax ku ne xamna na nyaksa ñax saxna ndax ñax sax dafa tollu ci sax bu baaxa baax ndax neer bi nim nim nim yeex a tax na ñax doko sax kon day mel ni danañ boole sëkk du ca mën a ñàkk te mbalit mi du ci mën a ñàkk waaye bayit mënta ñàkk loolu nag kuy ñëw nanga jàpp ne yaa war a indi brouette yaa war a indi ab peel yaa war a indi ab radu yaa war a indi ak bale loolu su ko ñun ñëpp jàppee dana yomb ci ñun lool lu nu ci fekkaat ci biir terrain bi day yomb dana gën a yomb kon nit ñi bàyyi xel ci ne liggéey bi looy def ba mat fukkat ak nangam bu doon wenn saar wooy jàng dana mokk dana mel ni fàttee ni ko murid yi ni ko ni ko ni ñu ko mokkale ci julli dana war a yomb ci noonu ndax lii nuy wax moom waxaj la waaye ku ne xam na ne nangami at loo xam ne bu set nga at mu jot nga def ko bu ñëwee war naa yomb ci noonu yomb gi nag moom weesul mu lu dul kenn ku ci ne ci sa bopp bañ a yaakaar ne kenn la war a jox lay war a liggéey ndax ab soldat dem ci xare naan nañ ma abal fetal soldat bu dee dem ci xeex ba te yóbbaale fetal xam na ne du kenn kenn du ko gaañ mbaa dana daw kon ñun li ñu war def mooy képp kuy ñëw nanga fexe ba sa pàgguteefub li ngay liggéeyee boo doon liggéey sa kër wala say tool wala sa wanag na nga ko war a liggéeyee boo jëmsee ci liggéey bi yow daal ngànnaay loola loola fi fekkaat nag ci ay xéewal nga xam ne dalaa dab rek waaye amurit moom wërta jëm ci liggéey yor loxoy kese te at mu jot ñu joxe bagage boo jaamee lu bari rek lu néew lu mu néew néew kenn ku ci ne lañ la jox te nga xam ne sëñ Tuubaa rek taxoon ñu jox la ko liggéey bi doo jox la ko soo ko denc mën nga am na joy des mën nga ni ya des ko fa bàyyi ëndaalewaat ko buñ la joxee dara nga boole ko ci dana yombal li ñuy kon sëñ baa ngi soññee ci loolu bu baax a baax borom oto tam liñ daan wax borom sareet yi ba léegi borom sareet yi ñoom nangoogu ñoo liggéeyal sëñ bi fekkee bëgg nañoo wax lu wér ndax liñ leen di wax saa buñ ko waxee dinañ ñëw jaayante wax dañ ko def mais ko benn yoon te mooy am na foo xam ne sareet doo nga fa mën a dem oto mënu faa dem te sareet boobu mën naa dimbale oto bi ndax bu demee ñu chargé ko mu indi ko fenn mu gën a jege tëli bi borom oto bi jël ko dana yomb ci moom waaye borom sareet yi da ngay ne ci digg mbale mi ñu ñu ñu mel ni ñoom dara xewut di dàq seen fas yi ñu leen neexee fu leen neex jaarale seen say nga xaye dañuy ñoo ñi bale dañuy rombante te waaye ab dëkk boo fa nekkee di ca terlu fas yi nga takk di dox ci dëkk bi di ci jariñu kaay ñu liggéeyal sëñ Tuubaa war naa yomb ci nun te loolu muy man muy keneen kenn ku ne xam nga ne liggéeyu sëñ Tuubaa bii de ku ko liggéey te yàlla rek a tax dana la ci fay ci àdduna loo xam ne wóor na da ci teg sa bët bari na jafe-jafe yoo xam ne loolu rek ko dindi kon nag takkaay suñ ndigg laxasaay waat te xam ne liggéeyal sëñ Tuubaa rek moon war te dara desatu fi ndax bu ñu dee xool daaw na ngeen si daaw am na ñoo xam ne ñoo ko àndoon ñoom te kenn gisu leen ren te wóor na ne def defuñu yàlla tax mu yóbbu leen yow mi fi des defaloo yàlla tax mu bàyyi la fi da koo soob rek kon nag kenn ku ne ci noonu war naa fexe lu mu yóbbantiwaale foofa te dama ko wax fu ma toll ne sañ sëñ Maalik daana wax na de yowmal xiyaam de moo na ko doon misaal dama lay misaal yow mu xëy defar sam néeg rek ci bis bi def ca lal sànc ko fekk fa ay matt ne yaa ko fi yóbbu waaye yi xëy ñu fa ñëw gannaaw fee nag moom kenn du fa yóbbaale dara dañ fay yóbbante te liggéey sëñ Tuubaa moom mooy liggéey boo xam ne soo ko defee dara du ci sikk liggéey boo liggéey seytaane am na ci yoon ba mu des liggéeyal sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa moom doo ko liggéeyal caa dugg ndax amu caw yoon ndax moom dafa noppi ci loolu moom loo ko defal lum néew néew néew néew seytaane amu ci yoon liggéey beneen boo liggéey nag bu dul boobu sëñ Tuubaa seytaane mën naa jaar ca ginnaaw dugal ci ay ndax sëñ Tuubaa wax na ne li ko jotali ci Tuubaa nee na jëf yëpp biñ dajaloo yalla dafa leen wax ne mbollem mbooleem yi nga xane ñoko bëgg ak khutba yi na taxaw ku ne sa jëf ji nga jëf ci bëgg nga bëgg tuba nak mako tégal fé dana yoni ay ndaw yu ko tan nee na kenn ku ñu ne bu ñu ne demal tànn bakkan ñëwal tan tànn man de gis naa ci sama wal ñu ne kon xam nga loolu yaq na ndax bakkan dugg na ci mu ne ñu dal ñu daal wo setan mu dem ne ko xol ci jëf jojo lo ci gis yow mu dem ne gis naa ci sama wal yalla ne duma ma kenn jëf bayina loolu mu ne sëñ bi nak bañ fa yabalé ñooñu mu yabal kenn ku ne da nga dem na fa lew yag nga del ci dellusiwaat ne ko man awma ca dara setan mi gëna bari pexé yalla ne ko demal xol ci jëf jëf joju nga xam ki bëgg tuba demal xolal mako ko na mu dem na ca lew ba ne ko gisuma ci dara mu ne tubaa ne ko ki la jox sama bop mu ne bu doon as ndaw bañ koy gëro kon la ko gër kon dekk ku mel nonu nga dekk bi non la way way kañu ko setal yom na nañ ko setal dong setal gi do ci genn ndax sa kër fi sak njabotang fi sa lepp nga fi bu setee yow rek la setal setalul sëñ bi xam nga yow rek la setal ba noppi ñu di la ci fay leen ëllëg loolu war naa yomb ci ñun nan góorgóorlu te bàyyi xel ci ne kii moom dëkk bi nii mu laxasaayoo di wane sëñ tubaa di ko wane guddi di ko wane bëccëg du noppal ci wan kuy sëñ tubaa bëgg noo soowee rek tax de waaye moom fa mu nekk nekk na fa ba noppi ñun ñi dong la bëgg nu jógee fi ne fekk ko foofa lafañ nag mënta ànd ak kuy waaxu day teel xëy rek lu ko moy du ko jot moom bu waree bu waree gont bu waaja waree gont la fañ mom da wara xey ndax bala ngont me jot ni man ag fañ jëm mom nak dafa xey dem bu yag nun nu toog ba naaju tang nu bëggo topi kon lu war nañu war nañu bayyi suñu xel ci ne leggel sëñ tubaa mom danoo war tay war nu ëlëk am mourid li feek mi ngi dundu lam wax bu dee deug ci mom momut bopam ndax moko waxal sama bop joxe sama bop nga wax di aduna ak aduna ji la nek nu ñi digal du nu téré waye fe mom ko dem da nga xamne kilifa baxna yal na yàlla boole ci ñi nga xam ne dañoo nangoo liggéeyal sëñ bi te saa bu sëñ bi wootee ñu bàyyi seen yitte def yitte sëñ muy seen yitte ndax amul yi amul warut a am yitte bu sëñ tubaa soxla soxla sëñ tubaa rek moo war a doon suñu yitte tey moo ko doon rawatina nag ku dëkk ci dëkk bi ku dëkk biir tubaa moom teraa ngay sëñ tubaa jii nga di ci dund ndax ka dëkk ca ka gën a sore ca ca àll ba ak ki dëkk ci dëkk bi reer dong la ñu wutale reer waaye sëñ tubaa moom ndékki ak añ foofu dem da nga fa fekk kafe ceebu jën ka gën a sooy dana ko am ki ne ci dëkk bi dana lekk ceebu jën waaye ka gën a sooy tam dana lekk ceebu jën reer dong lañ sëñ Tuubaa boole wut luñ luñ bokkule wut waaye lu reer noo ko bokkule noo bokk ndékk li noo bokk añ bi reer la ñu wutale waaye foofu dem danga fekk ceeb da fekk café ak suukar ñu koy naan ak mburu waaye waaye lii ki la ko defal te yow defaloo ko dara waaye nañ sant yàlla li ñu sëñ Tuubaa defal nu fa fas yéene takkawaayu waat bàyyi jàmbat yi bàyyi lépp te xam ne li ñu sëñ defal amut feneen te ku génn Tuubaa da nga xam ne li am Tuubaa amut feneen lolou mom ku gën dekk bi da ko xam ndax ñun ñëpp dañoo gàndal suñu këri baay suñu dekk baay fofu seen ab ab quartier bu fess dal ñafa nekk di doomi ndey ak doomi baay ak doomi bàjjan ab dekk lañu gental la tax ñu bàyyi dekk ba ñew fekk sëñ touba dara la dara joj nak ah ku bëgg du wut waye ku wut du am nit mom day bëgg di wut waye ku bëgg du wuto do am kon yalla nañu yalla boole ci ñi bëgg liggéey sëñ touba sëñ bi noo ngi ñaar ñepp ñu ngi leen ñaanal nga yàgg si te yàgg nekk suñu kanam yàgg doon suñu jëwrin la ma daan wax laay wax dama ne leen bu fekkoon ne gënoonoo jub gënoonoo ragal yàlla gënoonoo nangoo liggéey duñ la topp duñ ko nangu kon lii la toppee mooy lii la sëñ bi sant nu bokk ko yow nga gën ñu cee mën a sonn fuuf bàyyi sa lépp ñëw ànd ak nun te nun ñii fi toog nii boo indi woon say taalibe mën nañu noo waraat suñu biir waaye loolu lépp doo ko gis ndax xam nga ne yëf yi ak njëg koy maye njëg gi lo jëndut momo, luñ la abal mënañ ko nang nangu luñ la may mënañ ci andi jafé jafé waye lo jënd kenn mënul la ci dara te sëñ tubaa mom day jaay dong ku bëgg jënd nak ka nga koy may nit ñak ba son rek yef yu yombu de mësta yombu dembu yombul tay tam ndax ni defee ni la yombé tay yombé wuñu di ndax lu mag ñi daan doxé fi dem gànnaar de fekk ni bi fu ne fekk ni fi ñu leen di door ñi dañ dox ñi dañ dox ñaari ndax tukki te dara wétu lu bëgg ba jox leen digal dong nu nu toog fii ci Touba suñu kër yi añ ba suur këll naan ndox mu sedd nelaw ba mu ba mu naaj bu tàng ñu ne kaay ñu wuy kër sëñ Touba ndax dañuy santaane bi liggéey war naa yomb ci nun gorte am jom loolu war naa yomb ci nun ndax ñi nga koo fi seen mu dem ci sëñ Touba ba muy dem yaakaarutoon lii am tey pay yi ñu leen fay yëpp seen yoon mosu cee dañuy tas seen kër rek dem ñu fay fekk ak ndax seen yaakaar waaye sëñ Touba tasul seen yaakaar ndax kenn ku ci ne ba nga jógee ci moom ba nga delloo fa nga jógee xam nga ne ka nga fekk woon dara la de waaye dara jooju nañ ko ba tey rek mag ña dañoo sumi seen daal dong mu teg ko fi dem ku sol dàll wi dox doxin wa sëñ bi la mu yoroon jeexut tey la ko gën a mën a maye sëñ Tuubaa la mu yoroon ko gën a maye ku nangoo dox dox ba rek jot ci yëf yi kon noo ngi sant ñëpp di ñaan ñëpp yàlla nañ ci àgg ak jàmm yàlla nañ ko liggéey ci jàmm sëñ mun taxaa yàlla na fi yàgg te wér yàlla nañ yàgg ànd ak moom naal yeeg yi muy tàmbaleeg yi mu tàmbalee gutal lépp yàlla mi nga xam ne moom coobareem ci lay doxee yàlla def coobare sëñ sëñ Muntaxa mu àggale liggéey naal ay liggéey boobu ñu fekk ko ci barke Sëñ Tuubaa nu yàgg ànd moom itam nag doon ay taalibe yoo xam ne duñ ko war ndax war mooy bu ñu wootee nga ñëw ne sëkkatal li nga ak te bokkut ak li nga nar nun luñ nekk li lu mu nekk dañ cee nekk ak moom rek duñ xam fii la duñ xam fay la bu nee acca rek ñu ne acca bu ne toog leen ñu toog sëñ bi noo ngi sant ñëpp di ñaan ñëpp jàmm yàlla nu yàlla may nu fekke ko te liggéey bi yàlla na àgg ci jàmm te dàq ci mboolem liggéey bu ñu mës a liggéey ci Touba yàlla na ko suñu liggéey bi dàq gën ko yomb ci barke ndax yàlla mën na ko te yàlla jeexul dara wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu ndigal li yeesaliti nañu ko ki ko daan joxe it moo ko joxewaat jëmale ko ci ki mu ko daan jëme it nag may faral di wax ni ki daan jëfe yi waajuram yi jëfe ndigal yi kilifam yi de moom moo yëkkati ndigal jëmale ko ci bokki taalibe yi jaarale ko ci kan njabotam gi nga xamni moko tanal ko tànnal murtala wax na ko muy serigne Cheikh mom serigne Abdou Latif mi kon serigne Touba mo yekati ndigal jëmale ko ci talibi jaarale ko ci njabotam mu tan ni mu nan andal demb ak barki dem wala bok mu soññ leen ndax mësu def ci li nga xamni serigne sëriñ ko tanal wa ne tànnal kon ñu sant ci yalla bu baaxa baax sëñ Mourtala ni mu ko waxee lépp matale na soññe bi ni mu ko junje ni mu ko saraa jërul ñu di ci dellusi li ñu war nag mooy ndigal loolu ni ko sëriñ bi yéenee jëmale ko ci sang bu tedd bii mu woo wooñu defal ñu tawféex boole ñu ci nañu am ngor wande nañu xam loolu mu ñu defal lu mu doon muy féexi tey ak ëllëg ñu fas yéene koo nañ ko daan défé wala jëfé ko nu raw nañ ko daan jëfé ni ko sëriñ Murtala waxé légui lolé nak ci gattal dafa am lu mu laaj muy ren ku ne gis na ni donte ñaari at yu ñu don na ci ren la gëna bir muy mbalé mu nga xamni dañ koy def ci toyé wala bok ci biirum ndox sax lañuy wax Murtala wax na légui mbalit dana am de kon nañu fagaru mbalit mu mel nan mu diis mu taq mu naqaree dajale kon loolu laaj na ñu boolewaat suñu bopp ndax sëriñ bi kat liggéey bii bi ñu ko ko dénkee seet na ay jëwriñ ci lu daj tuubaa gépp fenn fu ne mu samp fa ku nga xam ne moo di bëtam moo di tànkam moo di noppam ngir di ko mën a jant bu yàlla sàkk wala waxtu wu ne mu ànd ak mbooloo mi di ko xoolal liggéey bi nan la war a demee waaye di ko ko soññale kon la baax mooy ci gox bu mu ci doon ña fa nekk ci ay daayira nañu boole seen bopp d'abord organiser wu tënku doon kenn di waxandoo benn kàddu di jëfandoo seeni yéene jëwriñ jooje ak seeni lu mu mën a doon bu ñu ko ko jokkalee jaarale ko ci moom lépp dana mag wande bu fekkente ne dañoo bàyyi daayira bu ne ku ne jaar fu la neex di xalaatal sa bopp di jëfal sa bopp di fa jël géntu kookee di ñëw fi moom la nga war a def dootoo ko def dang ko galfan ndax xeyna amna yitte yum wara dox te lolé doonul lu gën yaakar naani bis bu ñu ne nañu xey kenn ku ne ca gox ba nga nek daayira ba nga bok ngeen and doon ben boole la ngeen am señ mutla junj ko legi ay pàggu yaakar naani 2008 ak legi du ben fan du ñaari fan te booba ba tey lu ne dugg na ci dëkk bi ci wàllu matériel bu ne ci wàllu taxawaay bu ne wande même budul dara lim wax looy jàng 2008 ba léegi war nga ko mokkal moom la sëñ Murtala wax loolee nag mel na ni kon daayira ak mbooloo mu mën a doon fa ñu féete war nañu ko miin miineen gu nga xam ni war nañoo tàmm bi tàmmeen gu nga xam ni wante war nañu koo jekku jekkin gu nga xam ne ci baaxu sëriñ bi nag ndax loolu lépp moo nu cay dimbali ba lu nawet bii mën a mel ak nu mbalit mën a mel ñu war koo mën a jekku te loolee mi ngi aju ci li ma leen wax boole xel yi boole xalaat yi wande boole yéene yi ci tënk ko ci kuréel gu ne wande gox ba nga xam ni fa nga féete ni ko sëriñ bi waxee bu kenn ku ne tàmbale sa kër wuti ci bit ci bitti bi kër gu nekk ña fa nekk bu ñu tàmbaleen wut si mbedd mi awaay danañu daje te bu ñu dajee mbari mi set noona la gox bu ne mel kon mbooloo mu ne bu ñu àndee noonu tàmbalee fa nga xam ni fa la ñu dëkk wut si pénc yi wax dëgg yàlla yaakaar naa ni lu lu lu man di nekk ci dëkk bi ci mbalitit bu soobee yàlla loolee danañu ko danañu ko danañu danañu danañu ko daan kon la jiitu maanaam mooy booloo gi te tënku ci ndigal li ni ko sëriñ bi bëggee wala ni mu ko ndigale ñu jëfe ko noone te jëfe ko ci anam yooyee bu ko defee lépp dana yomb danañ ko mën beneen ba ca des xam nañu ne daaw ak daaw jéeg oto yi bu ñu jëlee mbalit mi maanaam ñii doon nañ jëm daaru salaam ñii bobareel ñii bàq ya waaye mel na ni atum ren jii ci benn béréb lañ jëm muy bàq ya ndax yeneen kàmb yi amul tey gis ngeen dëkk bi ni mel ko ndox kon nit ñi muy pap pambe chauffeur si apprenti yi wande convoyeur yi ci nekk nga xam ne ci daayira yi lañuy ñu jóge nañu tënku ci lii nga xam ni mooy ndigal li jib na ñépp jéem a wuti bàq ya wande ñu jaf ko ci anamu ab yar ak teg ak teey dox ndànk bañ nañu ko ba ci ndigalul sëriñ bi UCG mooy ngay waajal kàmb ya ba dootul doon benn bunt ku ne xam na ni daaw ay embouteillage amoon na fa ay jafe-jafe am na fa ndax loolu oto yi dajaloo kenn ku ne bëgg a jaar fu la neex moo koy indi waaye nañu amub yar nañu tënku ci li ñu santaane ñu di ko def ubbi nañu fa ñetti yoon ñetti yoon yu nga xam ne ña nga koy eh, eh, dër ña nga koy tàllal ña nga koy maasale bu oto yi defee ndànk rek dana ñu mën a décharger ci jàmm ak salaam wëlbatiku génn ñu war a dugg dugg ñi war a xaar xaar machine ya puus mbalit mi ba diirub li ñuy bale benn jafe du fa am tey ku dikk nga bañ a dàkk ca buntu ba rek tàmbalee ci buntu bàq yi di ko fa tuur di ko jal déjà non seulement àggoo fa nga jëm waaye yaa ngi sakk yoon wi te nañu koy ubbee man ngaa dem ba ci biir wàcce ko wëlbatiku dellu si ñu waraan la foo jaar génn te doo am benn jafe-jafe wande bu ku ne yoree sa cëggal guy di defee nu la neex ak waxal nu la neex loolu loolu du yëfi taalibe taalibe nañu amub yar nañu ànd ki teggin nañuy dégg ndigal te amuk dal ak ñu dal bu ñu ko defee lépp dana jàpp ni lépp dana yomb beneen ba ca desit mooy sëñ mu taaj junj na ko léegi ku ne xam na ni dëkk bi ndox mi bari na yoon yi kon bari na fu nga xam ni neexul sax a jaar far kon kay li laay war a sóol yi daayira yi ak kuréel yi ku mu mën a doon lu nekk mbalit ci koñ yi bu ñu ko jëlee nañu ko dajale ci sele ba yoon yi te ñu def ko jal yu rëy jal jalaan yu ndaw yi ci ay ruq ay jafe-jafe rek lay indi oto yi mënuñoo dem fu ne mënuñoo dem fu booleek tooye bi ku ne xam na ni mu mel bu ñu ko dëjalul ba mu def noonu ay jafe-jafe lay indi oto yi du ñu mën a dugg fenn te boobee dana yéexal liggéey bi dana balewu naam xëy na wande tonni ga dana am amul jafe-jafe kon daal na nit ñi góor góor lu ci amuk dal ak tekk ak teey wande nañu àndandoo kenn ku ne fa mu nekk na fa xëy lu waay man na ko def yaakaar naa ne bu yéene yooyu dajee li sëriñ bi bëgg dana am te moom mii li mu bëgg bu ko amee rek Cheikh Mamadul Muntaxa la mu santaane dana matte lool rekk mooy ndigal te loolu la ñuy xaar. asalaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi leen nuyu kenn ku ne ci turam ak santam ci ndigalul ñi nga xam ne ñaar ñi ne ñoo fi nekk sëñ Muntaxa di sëriñ Touba muy sëñ mi ak soxna ñoo leen nuyu bu baax a baax di leen sant bu baax a baax di leen gërëm bu baax a baax ndax liggéey bii nu bokk ak ñoom teñ mate ko lool jëfe ko lool nga xam ne bokk gën ka bokk ànd kook ñoom sax buñ ko seet danuy wax ni jomm nanu ndax toujours ma di ko wax liggéey boo xay ne da koy ànd ak sët sëñ Tuubaa yi ak waa kër sëñ maam Cheikh Ibra Fall ci liggéey yi kenn ku ne xam ne ni loolu bëriwul ci liggéey yi te at mu jël ñoo koy ànd ak ñoom ba mu àgg te day mel ni sax ñoo man eh, taalibe yi ndax soxna su mee foo dikk da nga ko fekk mu toog sëñ Cheikh mi waxaale ma ko ma waa kër maam Cheikh moom waxaale wuñu leen kon ñun ñi nga xam ne ay dongolan rek war na noo sant yàlla sant leen sant sëñ alaj Baara mi nga xam ne si moo sos liggéey bii bu am bi njariñ bu am tawféex àddina ak alaaxira bàyyi na ko fi war nañ ko sant bu baax a baax sëñ Cheikh nu ngi leen sant bu baax ndax ñun ñii bañ tàmbalee liggéey ba léegi ñu ci bari ñu ngi fi ca ca lañu ñu àndoon waaye kenn koo xamante ni rëccu nga li nga bokk ci mbale mi amut kenn ku ne at mu nekk danga ko yokk ba ba yëg ko kon loolu nun ñii ànd ak moom ànd ak ñoom ñii war nañ leen a sant bu baax gërëm leen bu baax a baax a baax te ñaan nag su doon borom dimbali nu dimb mësal nu ci seytaane ba liñ ñu wax nu di ko mën kon loolu nu xam ko nun mbooloo mépp xam ne kenn ku ci nekk defar nañ la loo xam ne si ndax da ngay wax ni jom jom na ma ndax kat euh, liggéey bii bu ngeen ko seetloo te seetlu ko baax a baax liggéey boo xam ne fii boo jógee ànd koog euh, njabootu sëñ tubaa gi ànd ko njabootu maam Cheikh Rafal ànd ko njabootu Cheikh yëpp bëriwul ci liggéey yi kon nag jërë ngeen jëpp ñu ngi leen di sant ñu ngi leen sant bu baax a baax a baax di ñaan nag suñ borom dimbali nu ba liggéey bii nu àgg ci def ko nan ko daa defee bu baax a baax suñ borom dimbali nu ba nga xamante ni lii ci sëñ bi bëgg lépp ci dëkk bi ci seru dëkk bi loolu dana dana dana mel nam daan mel mbaa murau raw ko liggéey bi nag ndox mi bari na sax waaye ndox mi li bari bari ndox mi sëñ bee ko ñaan mën da bañ bari kon bu ko kenn jàmbat nan fexe mbalin mi jóg fi rek nan fexe mbalin mi jóg fi rek barki démb bi muy xëy si ñëw fii daa génn kër gi lépp taa am fu mu jaar bi mu génnee lépp saa ñu jaarale ko faneen ci beneen faneen beneen beneen boor bi mu génnee sëñ Moussa dani ko bi muy wax sëñ Moussa dani ko ah yaa ñaanoon ndox mi kat yaakaar ñaanoon suñu borom jox na la ndox kon ndox mi moom bu kenn jàmbat ci mbale mi nan bale rek fa si yéene mba ndox dëkk bi set ndaxte ndox mi moom moom rek lañ doon ñaan kon nag li ci des mooy waa ci jëru guddul ndax ñun ñu nekk fii ñëpp kenn ku ne xam na njariñul mbale mi dëkk bii ak adduna ñëpp xam nañ ne xam nañ njëriñ njëriñul mbale mi at mu jot mu ne mbale mi li muy génn ci ay jàngoro képp jar na weer wu dee ñu def ko ndax kat ñun ñii lii nii liñ fi liñ fi ni yàggati yàggati Tuubaa gii gis nañ fi ba tay bu ñu màggalee ba noppi ay ay ay ay ay ay tawat ak ay jàngoro yoo xam ne yooyu dara andi ko woon lu may nit ñi nga xam ne ñoo fi daa ñoo fi daan daje weññi màggal sax dafi daa am ñu naan weññi weññi màggal la loolu kenn gisatu ko kenn gisatu ko kon mbale mii alaj baara mi ko sos rek moo xam moo xamoon lii waaye nag bi mu ko sotee itam teg na ko ci loxo yi wóor yoo xamante ni fas nañ koy yéene jox ŋàbb ba keroog ñu ñu ñu ñuy tële te noo ngi ñaan nag suñu borom yàggal leen fi lool ngeen bañ a tële yooyu muy seen seex mii ak seex noonu mii man day wat na ci yàlla ni ñaar ñii jar nañ dugg ci mbale mi soxna su mii di doomi di sëtu suñ tubaa rek saa bu ne mu bàyyi atti ay yiteem di di di ak nun ak mii ñun ñii de jar nañ bokk ci mbale mi jar nañ góorgóorlu ci mbale mi waxuma la njar pay sëñ tubaa nag jëlee na naa ko waaye ñoom ñi rek jar jar nañ ko baax a baax a baax kon euh, daanaka wax ji maa ngi koy yemale yéen sama bokk yi dong yii nag nañ ci gën a góor góorlu kenn ku ne na nga daan woote sa mbooloo nga woote ko sa mbooloo te góor góorgóorlu te xam ne kenn dibul kenn dara kenn ku ne buñ la tëralee laa liggéeyoon danga ko lekk danga ko jël soo foofu sax du fa àgg kenn ku nekk fii ngay tàmbalee tedd jëm yomal xiyam loo liggéey sëñ Tuubaa fii nga koy tàmbalee ngir jëm yomal xiyam kon nañ ko xam xam baax a baax ku la gën a liggéey sëñ Tuubaa moo lay gën a tedd bii te fale it boo watu dana la fa kon nag nañ ci lu baax te xam li nga xamante ni moom la sëñ bi bëgg ci liggéey bii ndax dëkk bi kat seetlu dëkk bi rek moo am solo leneen amut solo te buñ ko defee suñu njariñ lépp day day day day génn adduna ak alaxara kon nag jërë ngeen jëf noo ngi jégalu ci wax ji lu ci dëng bëgg gi rekk a tax ak yéene ji rek a tax waaye noo ngi koy jégalu baax a baax di ñaan nag suñu borom àggale nu ci. buñ ci àggee itam suñ borom dimbali nu nu am kattan ak wér goo xam ne daanu ko mën a jëfe ten te bu déwénee nu we nu fee nu nu nu nu fii kon jërë ngeen jëf di nuyu ñëpp jiital nuyoo bi soxna Astu ak sëñ Seex ak mbokki taalibe yi fi nekk yëpp ñu ngi leen di siyaare leen ndokkeel ci liggéey bu mag bi ñu jublu di ñaan yàlla suñ suñu borom dimbali bañ am ci ndam lu rawee lu kawe lañ daan am euh, man nag fi may waxee rek xanaa mooy li ñuy jàpp ne jafe na am na loo xam noo xam ne nii buñ ko defee ci xol yi rek du jafe noonu ab murit day fas ci xolam ne lii lii ma sëñ bi sant lu yomb la bu fasee ne lii ma sëñ bi sant lu yomb la rek ndimbalul sëñ bee koy fekk si sëñ Cheikh wax na ko ay yat ay ay yoon sëñ bi bu la jëfloo bu la liggéeyloo day dugg ci biir liggéey ba jàppale la ca te lépp sotti na na mu ko bëggee ak na nga ko bëggee te yow daanaka doo ci doon dara kon pësee fi moo ci mooy moo rek la dañ ci nettali benn xisa sëñ Abdou Xafoor Maam Mor Jaara bi muy sañ ci këram bi ci Daaru Xudoos ci ci Daaru Minam suñ seex da koo jox ab néeg bu rëy ca bayti ne ko dama bëgg néeg bi nga dalool ma ko kër ga ñaanal ma néeg bi ba mu ko ba mu bañ ko ba mu dongo yi ñëwee bëgg ko yenoo yenoo indi am benn waay boo xam ne dafa yembaraan ni man naa sii lii de kenn attanu ko ba mu naan lii kenn attuna ko am benn waaye ne ko suñ bi daa mel ni puj bi daa xaw a danga yéegal ci kaw nga jéem nga jubbantil ñu ko ñu door ñu door ko euh, yóbbu léegi ba mu yéegee ci kaw di jubbanti puj ba gars yi wax rek daal di ko yëkkatiwaale ak néeba moom ma doon wax kenn mënu ko ñu yëkkatiwaale koog néeba ci Daaru Xudoos ba ak suy ci kër sëñ Abdou loolu moo war a doon pësteefu murit sëñ bi lu mu santaane rek bu pësteef amee moo lay jox kàttan goo xam ne gi la la nga la mu bëgg da ko day am te euh, fa nga jàppoon ne danga fa ngay àgg ci coono doo doo ci àgg kon nag dañ gën a dëgëral pëseef yi gën a dëgëral laxasaay gën a fag fagwaat bu baax a baax a baax a baax bu pëseef bi amee rek lépp day yomb yàlla na suñu borom dimbaleel ci pëseef nag pëseef nag seytaane ñu koy yàqal waaye nañ ci góor góorgóorlu bu baax sëñ bi sëñ Moussa sëñ Mourtala wax na ko léegi liggéey sëñ bi seytaane mu ci yoon lu wér la sëñ daam su nag li mu wax nii képp ku ma sa bokk ci mbalam bi ba waxtu wa del see ci déwén si sant gën a sant nga dafa rëcc woo kon nag loolu war naa doon ak laxasaay ci ñun ñëpp waa dëkk bi yëpp defaluñ dañuy defal sëñ bi ba noppi defal suñu bopp ñooy buñ se bu dëkk bi setee ñun ñoo dëkk ci dëkk bi bu li bu bu bu yooyu demee bu jàngoro yi demee buy fi nekkoon ñun lay ñun lay lor kon bu demee ñun la demal kon nag ñu bàyyi ko xel bu baax a baax a baax kenn ku ne loo daan def rek fexeel ba bu doon ni ko si mut laa waxe bu dee benn na mat fukk te buñ ko jéemee rek léppay dox yàlla na suñ bi dimbaleel boppam ñu àgg ci jàmm te lépp lim lim ci bëgg yàlla nañ ko am yàlla na ko am bëggu sëñ bi bu amé rek suñu bëgg-bëgg am suñ cheikh ñing koy ñaanal mu yag nek suñu kanam ñu yag and ak mom ndam lu mu daan am ci liggéey bi yalla na am lu ko raw ren té lepp ñu and ko mom suñ min taxa yag fi wër assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh di sante bu baax sëriñ Cheikh Abdou Latif mi nga xamni moy suñu jëwriñ di suñu kilifa ci liggéey bi damay faral di wax ni sëñ Cheikh ñun dañ ko war di fay ndax magni bu njëkk buñ musaana jël ndigal lu jóge sëriñ ba ka musaana indi ndigal la dañ koy fay kon mbacké ñoo ngi lay siar bax di siar suñu wajuru tedd wi di soxna su mbacké mom señ abdoulay mbacké mu señ touba ni bay Daam Sorong waxé rek dafa doy sëkk jëm la jo xamni bala muy dem kërëm ci gani magali te kene bu ko fi gan ci dëkk bi nak yëfi da paré pare raxasat mu raxasaat bagage yëpp ba delloo kon ndigal liñu jot te sëriñ bi digaloon ni la tafalu shay'an bi xayri izni bu len def dara lo xam ndigal lalu ko am nañ ndigal lu joge Serigne Touba Cheikh Mamadou muntaha ndigal li moy ñu setal dekk Serigne Touba bi setal dekk Serigne Touba bi nak kep ko xamanteni def nga ko na la leer ni di nga set wecc ci bakkar waxna barki démb ci déclaration bi ni len tarbiye wom ñatt rek la won taxan buup rot taxan nak mi ngi waji wess ndax mattiyee gaas yi rotit mi ngi waji wess ndax rabina yi ak forasi waye buup du fi joge kon ñun ndawi dekk bi nañ fas yéene laxasu fas takku xam ne liggéey bi suñu liggéey la oto yii mbalit mi dafa diis ay ndaw ko mën a yëkkati aj ko si kaw camion yi dëkk bi daayira yi fi nekk ak kuréel yi fi nekk koñ yi fi nekk yu bëri am nay sareet nañ jël sareet yi mbalit mi ñu ko bi nga bu liñ bëgg dinañ ko am sëriñ bi lim waxul nga bañ ñëw suba sëriñ bi woote mbale nga xam suba marché ba kenn du tijji tax la tok ci kër gi bo boo xëyee wat señ bi wotiw lool liggéeyub señ tubaa la nekkon nak bañ rawma ba baa señ sëñ la nekkon bañ bañ jituma lool señ am mustafa Abdou khadim neena na musuko deg beut musuko gis kon nañu takku li señ bi wote nañ bayyi bamu jeex ñu doora a wat ndigal la señ bi ñun ci bopam bu waxon ñetti wër war nañ ko balé dekk bi war nañu tej suñ place ak yépp fasiyena jaayante ba señ bi lim bëgg am ndax señ bi lim bëgg bu ko amé ñun liñ bëgg dinañ ko am mbedd mi da ngay dégg xalé naan mbacké bu bu doon badar fal ben ben murid du du dess señ bu wotul badar mbalem dekk bi la wot nañ genn suñu laxasay takku genn suñu suñu alal suñu lepp def ko ci xamni señ tuba ne inna lasina sari'u bi qidma falahum diyar wa sal janna ñu soobu sama liggey bi na leen pare na leen defar ay palace digga diggaañe kon señ bi ñong lay sant bax mbacke ci turu ndaw yi dekk bepp señ allah nim ko waxe rek amna solo yéen ñi yor kambu yet lañ leen ñaan te ñu bënte mako moy auto yi nañ ñu dimbali bu baaxa baaxa baaxa baax taxaway baax taxawaay bi dafay yàgg ndax ñaari waxtu auto taxaw ko ci kàmb gi boba man na tey lu beure beure ci liggey bi kon ñoo ngi sant baax di di wo ku am ratuna indi ku am balena indi ku am gasoil na indi ku am mbanek ceeb na indi lu way jaayante xamni ni compte banque la suñ tubaa sayu liggey lo compte banque la la jox compte banque nak lo fa def boo gi moom koy alaykum wa rahmatullah mbak ñu ngi sunu di siar mbolo mi fi nek mer di jaarale si njaboot ak khadim gi nek ci salle tambalé ko ci soxna Astu mbacké bintu Cheikh Abdoulahi yar ko ci serigne Cheikh mbacké mom Cheikh latif ak mbooleem ñi mu àndal ñëpp ñu nekk ci salle bi di len siyaar di len jéggelu bu baax di ñaan ni ñu ko wat ren yàlla nañ ko fekké wat ay déwén karam ta and ko Cheikh mohammed muntaha yalla gën ko tap katan gën ko defal ak wér mu xiirtal nu si lu mu nekk ñu nekk sama bañ nu seen ci lenn loo xamante ne lu gën sëriñ bi kaddu yi jitu mooy li mbokk yépp wax sant goo xëy ne sant nañ la ko bu wér te bari ci ay morom lool li ko waral itam mooy danoo doon ay dongo saa bu nu di xañtoo am ngërëmal Serigne Touba nga dina woon fan la nu mën a jaar ba mën am ngërëmal Serigne Touba waaye la tax mu yomb ci noonu mooy ñimeloo gi nu gën nu ñimeloo sa bopp ba noppi tam sa bo wote dañ lay seen nga nekk ca kanam danaa ñew leen nu dem loolee nag dina ab yaafus bu mel ne man di soññee da ngay nekk sa kanam tana ñew leen liggéey Serigne Touba te yaatal gi mo wax yaakaar na ñëpp xam nañ ne Serigne Cheikh mi ku yaatal la Serigne Cheikh ku oyof la Serigne Cheikh ku tabé ci jëmam la nag ñu ngi lay ñaanal yàlla na ko si Serigne tubaa gërëm te gën laa yàggal gën laa wéral ba liggéey bii li nga si naal ak li ñu si sumb yàlla àggale la ko naka noonu mooy soxna astu ñëpp xam nañu ak njàmbaaram saa bu liggéey bi tàmbali mu bàyyi lépp dikk teew ba bi àgg yàlla na ko maamam fay ngeen jëfee ci barke Serigne Touba Xaadimu Rasuul euh, comme ni ko ñëpp waxee rek mbale mi ñu dëgmal bari nañu bari ñu ngi tiit naa nañuy bale si ndox mi waaye jàpp naa ne dëgg dëgg murit loolu waru koo def tiitaange ndax xawuma lu sëriñ bi bëggul waaye sëriñ bi lu mu bëgg moom mën naa nekk te mbale mii leer na ma ne bëgg ak sëriñ Touba la bëggu sëriñ Touba nag dañ la say dimbali ab jaam ñaan yàlla mu boole la ca ñey def bëgg ak sëriñ tubaa ga ndax saa bokkee saa boo bokkee sa ñey def bëgg ak sëriñ tubaa ga su sëriñ tubaa amee la mu bëgg yow ma doon def bëgg ga nga am la foo nga bëggoon kon noonu ñëpp yàlla nu yàlla tënk ci loolu te sëriñ bi day wax ne wax ji xawaïj lesiina daamoo fi xidmatin wa xablaxuma raamoo loole itam nun ñëpp gis nañ ne képp ku sax di liggéeyal sëriñ tubaa loole teg nga sëbët te mbale mi itam sëriñ bi daa wax ne képp koo xëy ne sama dëkk bii di tubaa seetal nga ma fi lu toll ne boo fi itam piccam përëntaan boo ëllëgee ñaan naa sa borom mu defal la ko kër ca àjjana te àjjana nag yaakaar naa yombul kuy dund moom ngay bëgg boo faatoo moom ngay soxla kon nag la koy tax a maye loole kuñ ca woo ku nekk ñu ngi lay dimbali kon nun ñëpp li war bu sëñ bi joxee te ndigal woote ñu gedd sunu kër yi gedd sunu alal yi gedd sunu lépp lu mën a am jébbal sëriñ Tuubaa sunu bopp ndax loolu moo ne may ndamal tey ak loolu ëllëg soññe bi ci des mooy mbokk taalibe yi ma sañ a soññ yi nekk ci dëkk bi te yaakaaroon kuru sëriñ Tuubaa bëgguñu kuru sëriñ Tuubaa te gëm na itam suñ lu am suñ tubaa ko may ndax dinaay dégg ñu bare bari ñu naa sunu kër yi yoruñu ko sëriñ tubaa ko yor bu nu gëmee ne sunu kër yi yoruñu ko suñ tubaa ko yor sunu jëmm yi ko suñ tubaa ko yor bu suñ tubaa wooteetee duutuñu soxla dara ci àddina lu may fexe ba bëgg sëriñ tubaa ngi am man de jàpp naa ne bisab xaside bi weesu li fi daje si mbooloo xajut ci mbaleem tubaa te ndigal képp a ko waraloon te ka joxe woon ndigal loolu sa bisab xaside ba moo joxe ndigal lii si bisam mbale bii kon koo xëy na war tëjët nga sa kër bàyyi say ittee def say bernde ñëw ngir bëgg topp bëgg ak Seex Muntaxa xam na boo si jógee taw feex doo nga say jëlee Seex Mamadu Muntaxa joxewaat na ndigal ci ne nañ setalaat dëkk bi balee ganu Serigne Touba ñee dikk cet googu nag ko bokk sa ña koy setal nattable wu ne amuñu sikki sàkk si na di nga bokk si ñuy tàggoog bàkkaar di nga bokk si ñi nga xay ne dañ togg ak ràgg di nga bokk si nga xëy ne loo sàkk Serigne Touba Serigne Touba dana la ko defal ndax bëgg ak Serigne bi kon maa ngi ci soññi ñëpp di si gërëm ñëpp di woo ñëpp ñun ñëpp nañ bokk taxaw mboolem fub daayira nekk mboolem fub taalibe nekk nañu jàpp ne Serigne mi daa nekk suñu jëwriñ ñu yónni ko mu diñu wooro ngir jëmee suñu lu baax waaye nun ñëpp noo bokk génn bëgg te mooy ngërëmal suñu Tuubaa Xaadim Rasuul te lu si waay jëf lu nekk yaa koy sàqamel sa ku ne jëfam kenn ne paxam boo faatu yow dong lañ la berse wax asalaamaaleykum wa ñi ngi ziaré ñëpp di jël parole ci suñu ndigal kilifa suñu président muy pambay di ñaanal señ muntaha mu yagg fi and ak wër di ñaanal señ cheikh mi nga xamné moy suñu jëwriñ ci mbale mi ñun nak suñu premier soigné mi ngi jëm ci walu camion yi ñi nga xamanté bi ñoy borom camion yi di transporteur yi ñi ngi ciy ñëpp bu bis baax ñu dimbali ñu bayyi kenn ku ci ot ki auto nga yabal yépp ñu ñëw ndax auto yi gëna bari mbale mi gëna gaaw ñu ngi ciy soññ ñëpp di ci di ko yëgal ñëpp bawuñu kenn ku lim ci transporteur yi da ngay juum moo tax ñu boole soññ gi ñëpp bépp transporteur di soññ tam bépp chauffeur boo xam ne yoon nga oto boo ca yeggee ca bis ba ñu ngi lay ñaan nga teew ci te xam na lépp lu ci waay def rek sa bopp nga ko defal liggéeyal sëñ bi la liggéeyal sëñ bi nag waroo kenn ku ne waroo nangu ku la ci ëppale wala ku la ca gën a gaaw ñu ngi ñaan ñëpp bépp chauffeur fépp fu chauffeur rek ñu ngi lay soññ bu bis baa nga teew si teel a ñëw te bu la joxee sa bon nga wuti fa ngay sole ña nga xam ne ñoom lan lay booleel nga ànd ak ñoom fas yéene liggéey ba jant bi so beneen bi ci des waa comité bi ñu dimbali ñu ci képp koo xamante ki yow yaa ngi ñëw di laaj oto nga am mbooloo moo xamante bi bu demee mën a sarté jox la camion bu mag nga xëy suba ba ngoon benn voyage te camion bi maanaam 5 voyages wala 6 voyages ci bis bi loolu tamit ñu ngi koy ñaan képp koo xamante ni ñëw nga di laaj eh, oto nga am mbooloo moo xam ne mën na koo sarté loolu ci bëgg nañ ko ci te tamit ñu ngi ñaan dëgër yi nga xamante bi ñooy ñëw ñoom itam di jël oto yi ñu teelee a jox yi ñu teel a liggéey bépp dëgër bu ñëw wala association boo xam ne ñëw nga te am mbooloo moo xam ne mën na laa liggéeyal sarsi camion ñu jox la ko waaye nag jël benn camion jox ko nit mu xëy suba ba ngoon camion ba benn wayaas wala du ko mën a sarse tamit doo loolu doon loo xamante bi lu jaadu la benn ba ci ku jox camion ndax ndox mi bari ci dëkk bi nga xool fa mu war a mën a jaar nga jaare ko fa waaye it am na foo xam ne boo fa bëggee dugal camion muy diggante boo xam ne fu bari ndox la wala mënu faa tourné nga bëgg faa dugal it bu boobaa loolu day indi benn jafe-jafe jafe ci liggéey bi wàllum booy essence te gasoil tam ñu ngi ciy sàkku ñu di teel a joxe te ñu xam fi ñu koy euh, teel leen koo wax station bi nga xam ne fa koy jëlee ñu ñu jawali fa te ñuy dimbale ci safoor jëm ci côté boobu te xam ne bépp safoor bu ñëw rek boo amoon sa gasoil bopp rek yaa koy soxla sa bopp dem liggéey waaye sax doo jël gasoil safoor si ñu ngi leen di soññi comme que dañ ren ji benn point la ñuy jëm bépp chauffeur boo xam ne dañ laa boole ko convoyeur boo yeggee ca kàmb ga fa nga war a jëm nanga xaar ba na la jaaral fii wala fa nga mën a jaar fa jaaral fii nga jaar fa pour bañ am benn jafe-jafe waaye jaar fii xëcc ñu la jaaral fii nga xëccu jaar fee itam ñu ngi koy ñaan benn chauffeur bañ koo def te xam ne ñun ñëpp lu baax lañ bëgg kenn ñun ñëpp lu baax lañ bëgg moom lañ ci sàkku ak ngërëmal sañ Tuubaa ndax ñun ñëpp dañu bëgg a liggéey sëñ bi rek moo tax ñu di ko def ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp tey woo benn bépp chauffeur nag di ñaanal sëñ Muntaxa mu yàgg fi te di soññ suñu bopp di soññ mbokk yi nga xam ne ñoom lañ séqal liggéey bii xam naa daje daa mënut a ñàkk waaye daje wër woon am sax ndax kenn ku ne xam na liggéey bii fi ak agsi ci ak fi la àggale ni ko Baye daam waxee léegi liggéey bii képp koo xam ne tàbb nga ci am at te pëstéef tax nga tàbbi ci Sëriñ Tuubaa dong tax nga tàbbi ci boo liggéey da gis loolu liggéey bi jariñ ñun am nañ ci firnde yu leer nañ ndax yaakaar naa at mu nekk gis nañ ak yokkute ci liggéey bi ñuy liggéey kon nag ñun jekk nañ bu yàgg sëriñ bi yàllantee ñu doon suba la mbale mi nga xam kon jekk nañ bu yàgg comme jekk nañ nag nan ñaan mbokki taalibe yi itam wóor na ma ni ma jekke ni lañ jekke ñoom ñëpp a jekk fu ñu leen joxoon rek ñu jëm foofa xamaa li ci dolliwaat moom sëñ bi wax na ko léegi muy wàllu safoor si ak ñi nga xamante ne ñooy yor oto yi yéen ñu yor mbooloo yi nan fexe ba déggante ngir jëmmi yàlla ak jëmmi sëriñ Tuubaa ku ci mbooloo moo xam ne benn oto bu ndaw moo la arrangé bàyyil jël oto bu ndaw ku ci mbooloo moo xam ne oto bu mag moo baax ci yow ñu jox la oto bu mag ndax liggéey bi gën a gaaw ndax liggéey bi yaakaar naa ne tardement bi ci ëpp mooy ñu yor mbooloo yi dëgg-dëgg dañ leen di jox oto yi suñ leen jox oto yi liggéey bi gaaw te ñun fekk liggéey bi ak duñ wàcc sëriñ bi xam ne lii ma wax ñun bu doon am fukki fan bu sëriñ bi néew jaajëf rek amatuñ soxla ci suñ kër amatuñ soxla ci suñu place amatuñ soxla ci lenn kon nag lépp luy gaawal liggéey bi nañ fexe ba loolee ñun ñëpp ñu bokk ci taxaw kon ñu ngi sant ñëpp sëriñ bi kuréel waajal mbale màggal Tuubaa jekk na bu yàgg jekk na bu yàgg ci fàggu tiifam ren wut dañ ay mana jënd nañ ay mana jënd ay bool dutuñu abbi bool dutuñu abbi mana ci lépp ci mbale mi dong lañ ko jële kon mbale mi ñun yëg nañ ci ak yokkute dañ naan togg di àbbi bool àppatuñ kenn bool àppatuñ kenn ay cin liggéey lañu ay cin yoo xam ne kuréel waajal mbale màggal Tuubaa dong ko tax a jóg kon nag ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu bak Seex Xaadim asalaamaaleykum wa rahmatullah kon ni ñu ko baaxoo waxee rek nuyoo bi mu ngi jóge ci Seex Mahamadul Muntaxaa mi boroom liggéey bi di boroom diggal li di Seexul Xaadim te naka jekk muy sunu kilifa di sunu jëwriñ di sunu bunt waaw ci liggéey bi sëriñ Tuubaa bi ba mu ko seqeeg bokkam yi itam rawatina léegi bi mu jiitee liggéey bi sëriñ bi kon mooy sunu lépp di lépp liggéey bi mu jaarale ndigal li ci sëriñ Basiiru ma yegsi ci noonu bu ñu koy yëkkatee njëkkee sëriñ Cheikh Jëmb ak seexi sëriñ Tuubaa yëpp sëriñ Cheikh Jëmb jot lu war na ndigal li ci njabootu Cheikh Ibra gep barki dem rek ri mustafa Mbar mi ngi may xamal ne leetar dem na ci këri Cheikh Ibra yeb kon noo ngi jottali nuyoo bi ci Cheikh serigne Touba yëpp bàyyiwuñ kenn naa rek di soññewaat ci liggéey bi liggéey bi nak serigne mustafa Mbar amna lu wax keroog daanaka jërëtutoo soññee ndax dafa mel ne ndongo day weesu dal baax mbir boo ko defee fukki at ak ñaar fukki at ak ñett war nga xam war ngaa xam lam la jëriñ war ngaa xam yoon wa war ngaa xam waxtu wa war ngaa xam doxin wa nga xam na ni ñu ngi koy xam baax ndax at mu ne mu gën a yomb ca daaw ja te loo xam gi ak pas-pas bi moo ko waral te noonu ko gis bu baax kon nag ci turu sëriñ bi maa ngi soññaan ñëpp rek bëgg nu fedd laxasaay ndax daa mel na soññee moom mosu fee jóg ndax ay ca góor moom yàggees na góor ci waaroo yàggees na ko wax ci toolu sëriñ bi kon nag ay ca góor rek góor ci waaroo nan ko àndaat nan ko daan àndee defe ko nin ko daan defe bu nu fa jógee gisaan njëriñ lan daan gis ndax baat bi ñëpp di wax njariñ njul mbale mi nun ñëpp xam nan ko lan ci doon dégg mu bàyyi ko ci sëriñ bi ak ñooñu sëriñ bi ak leen ci gisal suñu bopp waxtu mu ne koy gën a xam mooy nun ñëpp kenn ku nekk yàgg ngaa sóobu ci mbale mi àndaale ci ay yitte bu mbale ma jàllee mu yéwén yéwén yi nu rafet ci barkeb sëriñ bi waaye ci barke mbale mi noonu ñu wax léegi mooy li am sëriñ bi yàgg na defar mbirum góor yàlla ci buubloo ko wala roodloo ko kon bu ñu tànnalee mbale bi dañ noo tànnal yoon ba gën a gaaw te njariñ te loolu bu barki démb rek bi may ci wax sëriñ montaka di ko wax ne ko waxtu wi dara jot ma doon sàkk ko yeesal ndigal li ngir ma man ko jotali daf ma ne lolou kay waxuma la len ndigal waye sen ndigal lu ngeen jago la sen khas la sen tawfeex la on na ngeen ko japp sen fukki loxo te lepp lu ngeen ko fonk na ngeen ko gëna fonk lepp lu ngeen ci dan fas na ngeen gëna fas lépp lu ngeen ci daan def ni ngeen ko yokk ndax de tawfeex ju rëy la ci yéen ndax ñëpp ko waroon bokk ñëpp ko bëgg waaye yéen lañ ko jagleel kon loolu doon sëkk ab soññee ci noonu ki ginnaaw suñu tawfeex la nan ko nga bëgg suñu que yéen a jëriñoo ju wér a wér la ju rëy a rëy la ndax daanaa ko wax fii tawfeex mi ngi tàmbalee ci suñu boroom bind la bind ay mbindeef bind ay do bind la ngay doomu aadama te wax ne doomu aadama moo ko gënal ci lu mu bind jan tawfeex la suñu boroom defaat nun nu bokk ci xeetu sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam janeen tawfeex la def nu bokk taalibe Sëriñ Tuubaa muy janeen tawfeex suñu boroom dimbalim nag nu dëkk ak Sëriñ Tuubaa ci dëkkam bii muy janeen tawfeex su suñu borom dimbalee nag ci biir dëkkub Sëriñ Tuubaa bi seetal ko du sunub cër wala daa niroog la ku baax ko waxoon sa bi sallallahu alayhi wa sallam ana xiyaarun min xiyaarin min xiyaar ay tànniif lan yu jógee ci ay tànniif yu jógee ci ay tànniif muy tànniif yu bare bare ne loolu nag cant yàlla rek moo ci war sant nag daana wax ne dañ koy fas ci xol tudd ko ci làmmiñ jëfe ko ci ay cër kon nan ferli pas-pas yi te dugg ci làmmiñ mooy ay cër nu fasoo ko jëfe gi ci cër mooy nan ko jëfe nan ko daan jafe ba weesu fan ki daan toll ci waajtaay kon noo ngi woo ñëpp ñoo ngi soñ ñëpp ni ma ko daan waxe fii nag kenn ku ne na nga daan jàppe xam nga ko mooy ñu ne ci dëkk bi waa regroupement benn yi wax nañ ko léegi ñoom lañ daan njëkk a soññ ndax wax naa bale bi ay nit ay génn bale dañuy soxla jumtukaay yu sew yi bale bu ñu noppee dañ koy def ci oto yi oto yi tuuri ko kon benn yi tuuri mbalin bi dañ ci yor liggéey bu réer yi moo tax ñu wax leen ñu soññee waaye ñoom itam dañ ko seq mooy ñi moom oto yi ak safoor si waaye ñoom ñëpp dégg naa ne son soññ nañ leen léegi leeral nañ ko façon googu rek mooy li ci am solo kon noo ngi sant waa groupement bi leen sàkku ñu soññeen lu baax a baax ci biir njaboot ga liñ ci wax déggaale naa ko te loolu lépp xam leen am nañ yéene luy doxal liggéey bi rek la noonu yi la ñuy ànd soññee bi incha allah ñin ko daan seqal ñëpp ñu ngi leen soññaat waa Touba ci kanam ñi nga xam ne danoo bokkub liggéey noo bokk ay jëwriñ nooy fabandoo di tegandoor ñoom du ma leen soññ ndax dañ koo bokk réunion bii waroon nañu fay yónnee si damaa jàpp ne ndaw yi dañoo ko waaye léegi rek sëñ Abib ak sëñ Abdoulaat ak Abdou Fatah noonu nekkandoo kër sëñ Muntaxa ma leen ne tey dañoo am réunion waxoon ne ne diw ak diw ñoo cee ñëw xam naa dañoo teq kon waaye noo bokk liggéey bi ñoom maire dafa am wet gu mu am solo ndax loolu carburant bi tax cabi yi mën a liggéey ñoom moo yi moo ko daan féetewoo te dinaa ci egsiwaat ne liggéey bi yàqali ko ak ni kenn ku ne war a yokkee loxoom te ne mi liggéey comité bi nga xam ne noonu dañ ci ab bànqaas comité ba sëñ Saaj Bas jiite ko sëñ Ousmane di jëwriñ ja ñoom waxtu wu nekk dañ leen di wax fi ñu toll ci wàccaay ndax noo ko war a ànd da liggéey bi sot ñoom nag ñoo ne dañoo sàkk na doon ci liggéey bi fii fi jamono toll noo ànd kook moom loolu donte sàkk wuñ ko woon xam na ni sunu liggéey la bokk waaye nu ñun ñëpp nu xamandoo ne daa yaatal liggéey bi da ko diisal te ma jéem a ŋàcc ndox jéem a sëkk fas yéene lépp lu nu ci ko def waaye ñi ciy war a jàppit nañ ci jàpp nañ ca nañ ko nañ ca war a jàppee mooy luñ daan def ñu yokk ko man noo dimbale ba nañ ci bëgg a duggeen duggee ci noona dëkk bi moom ku xam na ne ñaan ko nangu rekk ci leen ñuy dox ñaan ko nangu yi mi ngi daje tàmbalee ci ba ko sëriñ bi sam sañc muy jënn jëmmam ci képp dem ba sañc kër ay murit ñëw fi dem ba sañc ñeenti kër kër gu ne ab murit ne fa dem ba tukki bàyyi fi dëkk bi dem ba ñëwaat jaaraatu ci dëkk bi waaye lam doon ñaan bi mu ko sanc ak lam doon seet ba gis ko fi ba tax mu sanc ko te muy barab boo xam ne barabu xéewal goo xam ne ci àdduna lay tàmbale jëm ajjana ci barab bii la ko sàkko fi la amee loolu moo ciy feeñ feeñ ci dëkkin yi feeñ ci ni nit ñi ñëwee fee ba tax fi dëkk bi àgg maag dëkk bi diir bi ñu ko sañceeg léegi muy téeméer naat yu tegal tuuti ñu ne mooy ñaareel dëkk ci Sénégal Sénégal am ci dëkk yu am junni am ci am juróomi téeméer at am ci am ñoom ñeent téeméer at jóg romb leen weesu leen bu yàgg seen morom ci dara ñaanu borom dëkk bi ak lu mu liggéeyal yàlla ak lu mu jaayante yàlla ba yàlla defal ko moo andi lii des na Touba gii loo gis ci barab ci xewal wala rafet wala lu yéeme jàppal ne mën naa am Touba moom kay jumtukaay yee dolliku xéewal yi di dolliku bañ mën a ànd ak moom dëkk fi te du yàq dara waaye lépp ay dolli pour lu baax am ci àdduna ñu defa toog dañ xam ne dina ñëw Tuubaa gi te loolu day dégg naa ñaari xisa te benn bi sëriñ Falloo ko wax bi ci des sëriñ Basiiroo ko wax foo gis nga ci àdduna xamal ne fee ko tax a jóg fam jaar dafaa jaar rek dañ Tuubaa taw fexe dem dëkk fi nan sant sëriñ Tuubaa nan sant Sëriñ Tuubaa nan sant Sëriñ Tuubaa te jëfi cant gi nag mooy nan ko seetalal dëkkam bi balaa gan ñee ñëw ñu ko alaaj Bara Fall kon noo ngi woo ñëpp dëkk bi ku fi nekk te yëngu ci dara la ngay yëngu nga gëm ne barkeb Sëriñ Tuubaa moo la ko jox na nga ma att na delloo loolu ci dëkk bi ci bis bi ci wàccaay bi ci mbale bi kon mbooloo yëpp ñu ngi leen di woo ñu ngi génn yor jumtukaay yi bale yi wax nañ ko léegi waa sareet yi faaw mu beral leen ab woote dañoo soxla liggéey bi te kenn gënul leen a jariñu ci barkeb Sëñ Tuubaa ci dëkk bi ndax ku ne xam na ne ab sareet la mënoon a am ci àll bi ak sareetu Tuubaa li mën a am ku xam na ne bokkuñu jegewuñu kon xéewalu Sëñ Tuubaa kenn gënu leen ko yëg kon ma la ñemee ñëwee xam nañ ne nit ñi liggéey sax ko bëgg a def da dugg dara liggéey mën nañu fexe ba nit ñi dem liggéey waaye dañuy tëj marché ba nit ñi nañ duggi waaye ku yóbbu nit ñu liggéey nga yóbbu sa saret ci biir liggéey ba képp ku ko def boo amee benn saret bu déwénee da ngaa fukki saret lu ci waaye def da nga gis loolu la jariñ balaa déwén kon kenn ku nekk fa nga nekk jëfe fa te fa nga jëfe fa la la sëñ Tuubaa fekk faye la kon noo ngi woo ñëpp dëkk yi wër dëkk bi itam nan ko daan wax dëkk yëpp dëkk sëriñ Tuubaa lañ kon dëkk yi nga xam ne sëriñ Tuubaa dafa dëkk dëkk loo ñañam ñu wër ko dañ xam ne fu ci waaye mën a nekk ci biir dëkkub sëñ Tuubaa nga nekk kon noo ngi woo ñëpp moom la ko ci Daarul Musti Mesere Madina Touré Mbàkke Bawol waa Mbàkke ngi fii benn dëkk bi la dëkk yi din dindeeg tindoo déeg yu deme noonu moom ñoo gédeeg Baxdaad dañoo penc mu xaw a gën a sorante waaye lépp moom biir dëkk bi la moom waaye dëkk yi war Touba yëpp Touba Fall ba bañ jaaree mag lépp ci Touba la bokk ñëpp nañu wàcc ñëw ci liggéey bi bu ñu ko defee dana yomb lool te bu ñu xasee ñëw it lépp lu ñu tax mu set sell noo am ngërëm nan ko def bale nañ ba tàyyi ma man damay dem ba yërëm nit ñi ci ñaari fan bu ñetteel bi di wax sëñ Fallu sëñ Modou Aminta ne nekkoo teenoo yeewee waaye day wax ne duñ dem di fi bàyyi dara nan nag ba lépp sotti te nan ko daan defee bale ñaari fan ñetteel ba ñu dem bay bàqee ñëwaat nag ton tàng ndox ak fëkk ak sëkk nan xam ne loolu lépp la def waaye baat bi ñu daan wax rek buñ bàyyee sun itte ngir sëriñ bi buñ delloo nag ci suñ bopp fekk sëriñ bi defal na ci suñ bopp lu mënutoon ci suñ bopp kon nan bàyyee suñ bopp ba defal sëriñ bi li mu bëgg kon nag waajtaay waa ngi noonu yoon waa ngi noonu ba ci bitim réew fu taalib bi nekk ni ma koy waxee ke nekk Japon ke nekk Amérique ci am fu taalib bi fanaane xëy julli suba di ñaan yitteem barkeb sëriñ Tuubaa la koy tëje kon na koo gëm ne sëriñ Tuubaa la dëkkal fa mu nekk kon sëñ Tuubaa bu ñu koy war a dëkkam bi foo waaye nekk nga gëm ne am nga ci wàll dafa ko ku ci jàppit sëñ Tuubaa jàppale la kon ñu ngi woo ñëpp ñi nga xam le nag kon bis bi danoo jàpp ne talaata yi suba ji bu dellu si day doon seenu bu njëkk àllarba mën naa doon benn fan mën na koo bañ a doon waaye alxames yi nga xam ne moom faaw mu dugg safar doon benn mbaa ñaar doon 9 septembre lañu bëgg ñu tàmbali ko liggéey bi incha allah loolu nañ ko yóbbaale ku ku waaye dem na ko yóbbaale ku soññee na ko yóbbaale ku waaye di wax na ko yóbbaale alxames 9 septembre benn doon faaw ci lay doon benn walla ñaar ci lañ fas yéene tàmbali liggéey bi kon ñoo ngi jottali ñoo ngi daldi waxal rek soxna Astou ñoo ngi gën a santaat di ko gën a ñaanal moom itam su boroom defal ko fanu gudd ak wér defal ko jàmm defal ko njabootam gépp muy soxna yi lu gën a mën a ànd liggéey bi ñoo ngi koy ñaanal ñëpp yàlla na ci dugg ci bisimilahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabbil alamin day jeg tawféexi sëriñ bi ba mu lépp yomb lépp ya lépp lépp yaatu lépp barkeel mu day cee ngërëmul sëriñ bi jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu dégg ngeen ko sëriñ bi waxee soññee bi bàyyiwul fenn ñëpp la soññ muy soññee bu yaatu waaye damay waxtaan ak menn mag ci fan yi mu ne ma mu ne ma sëñ Mbacke Bousso de xam nga lu tax mu sànc Kede ma ne ko ah déedéet foo ma ko de mu ne bi muy sànc Kede wax ne Touba de su ma fi dëkkee ak sama njabootu jigéen gi jigéen fu ne dafay sànni la mu fay yor te ma bañ mu taxal Touba ma tax ma dem sànc Kede mu ne loolu sëñ tax mu yóbbu mu dem sànc Kede mu ne bañ ku dara ci dëkk bi rek mu ne naa dem ba daan barab bi ndax su ma fi nee sama waa kër ñi mën nañu fay sànni dara damay bañ ko taxal foofu moo ko tax a dem Kede sëñ bi xoolal kooko fa mu nekk rek kon ñun ñi dëkk ci biir dëkk bi mag moo xam ne liggéeyal na sëñ tubaa doon na sëñ tubaa lépp mu ne ragal waa këram jël am mbalit indi ko ci ëttu sëñ tubaa bi rek moo ko tax sañ ci Gédé ndax bëgg a sari barab bi waaye waaye ñun war nañoo góorgóorlu de kon sañ bi ñoo ngi lay ñaan baax yàlla na daje ngërëmu sëñ tubaa liggéey bi yàlla na yomb ci nun yàlla na nga def ci taalib yi ak wér defal leen xéewal goo xam ne balaa bis baa ñëw ñoom ñi kenn ku ci ne dana mën a am lu mu indi ci liggéey bi am lu mu bàyyi te yàlla mën na ko yàlla na ko defal njaboot gépp ñaan yi ci barkeb sëñ Muntaxa ñii ñëw nga xam ne duñ noppalu boo woote ñu wuy si lu mu guddi guddi ñëw duñ tayal duñ yàkkamti ñaanal ci barkeb sëñ Muntaxa ñoom kenn ku ci ne bu ñëw ci liggéey bi na am lu mën a yore liggéey bi am lu mën a bàyyi këram loolu yàlla mën na ko ñaanal ko mbooloo